alors euh, ñuy ndégandiku le premier ministre du Sénégal foofee ci assemblée euh, nationale niki tey ngir mu def li nga xam ne moo di déclaration de politique générale du DPG bu nga xamante ni jamono ji Sénégal yëpp ñu ngi koy ndégandiku mais lan lañ ci mën a xaar du point de vue économique ñu bàyyi maamu mu fegoo ci ak docteur Mor Gassama maa comme li nga wax rek mu nekk ab point bu am solo ndaxte jamono ji ñëpp ñoo ngi xaar euh, premier ministre Amadou Ba euh, ci déclaration général ba nga xamante ne moom la war a def euh, tey jii nii ba tax na sax kii di Mor gasama ñu war a waxtaan ak moom ci boobule poñ waaye laataa ñu wax ci déclaration ba ne moom la xaar ci premier ministre Amadou Ba docteur Mor Gassama tey jii nii gis nañu rek ni semaine bi ñuy génn voté nañu budget ministère des finances en tant que économiste ban jàngat nga ciy def ak noo ko gisee. Euh, waaw euh, merci beaucoup euh, soxna Mamou en fait euh, li ëpp solo foofu mooy ne rek euh, maanaam dañ boucler vote budget bi parce que ministre des finances bu ñëwee assemblée nationale moom mooy superviser budget bi budget bi à la fin bu ñu paree aussi bu ñu ñëwaatee donc mu taxaw maintenant pour défendre le budget global bi nga mhm. xamante bi moom lañ économie war a fonctionner ou voilà ci ci année bi moom la ñu nag loi de finance initiale moo koy waral bu dante ne voté nañ ko bu validé ko mu nekk nag budget initial waaw budget boobu mi ngi tourné autour de donc six mille quatre cent milliards donc environ euh, que ci lañ jàpp na moom la war fonctionner gis na kon yokk na yokk na par rapport ak at bi weesu ndax 2022 bi budget bi ñu prévoiroon mi ngi tudd doon tourné autour de euh, milliards donc boo ko xoolee da nga gis ne li ci yokk war na mat à peu près euh, na solo te généralement sax presque noonu lay fonctionner wante euh, leneen li ñu ci gën a war a mën a jàpp xëy na ci biir waxtaan bi doon ci gën a jublu mooy ne ñoom dañ gis ne budget bi li ci ëpp dañ ko war a mën orienté ci côté social donc maa ngi gis ministre des finance bi mu koy wax tax mi ngi koy expliqué près 47,5 pour cent ci montant budget bi yëpp daanaka ci côté social bi lañ ko war a orienté loolu nag boo ko déggee euh, njàngat bi soriwul ndax 2023 ngay nekk 2024 mooy élection yi. boo ko defee année sociale le président wax donc jéem a occupé wu d'abord davantage ci ci ci ci secteurs sociaux yi euh, pour que gën a wàññi frustration yi. Mm-hmm. gën a améliorer tuuti niveau de vie bi wala régler problème yi pour que pour séduire l'électorat parce que en réalité côté boobu rationalité euh, politique moom la moom mooy dominer orientation bi que mhm. la rationalité économique. kon su boobaa mun nañ comprendre ni vérité des prix mun ñu ko appliquer parce que euh, bu ñu nee affaire sociale tout ça du coup ce que loolu mun na jàppale Sénégal euh, si suñu développement. waaw kooku beneen volet la parce que xam nga boo jaay dafa am lu ñuy wax coût de production mooy li ngay def li ngay dépenser pour produire. yow en tant que ki yow mi produire da nga teg sa marge doo ko mën a jaay léegi nag bu nente ne yow li nga jaay da dafa yokk maanaam li nga jëndee wàcc ci première li liggéey bi wala li ngay transporter yëpp da koy incorporer ci prix bi parce que consommateur final mooy supporter toujours mm-hmm. voilà léegi nag bu dante ne au niveau mondial crise am na comme ni mu demee nii nga xam ne prix yi dañu explosé da xool rek ku doon jëlee conteneur bitim du ko indi da ba jege ba àgg 5 kooku munoo ko supporter yow yow miy jaay kon da nga sa njaay du sotti da nga obligé incorporer ko ci prix bi su boobaa aussi ci njëkk di gën a yokk léegi nag foofu euh, état bi mi ngi ci def ay effort mm, mooy subvention yi mu wax ni di mm-hmm. renoncer ay taxes boobu ba léegi mi ngi koy def waaw euh, mais lañ ci seetlu mooy ne bu dante ne waxtaan wax dëgg ca la maanaam lu ci bëri daf koo échappé da ko rëcc waaw parce que aussi euh, boo xëyee sax nga fixé ay prix bëgg ko imposer nit ñi bay jàpp ay détaillants lu ci bari tax di leen fayloo ay taxes et cetera alors que boobu nga imposer benn prix moom demi grossiste bi wàññiwul grossiste bi wàññiwul wala wàññi na tuuti mënu ci gis boppam maanaam kon mu mënul jënd di jaay di vente à loolu xel mënu ko daj. donc ça veut dire que concertation bi côté boobu des na fi et puis bu daan ne bëgg nga détaillant bi di wàññi directement ku yow état ki ngay wax ak mooy grossiste bi. parce que demi grossiste bi ak détaillant bi yëpp ci grossiste bi lay jëndee tant yow grossiste bi ñu ngi waxtaan nga xool ba xam euh, yan montant la jaay après yow yaa koy subventionné directement su boobaa nit ñi mën nañu ko yëg bu dul loolu coow lay andi rek maanaam day dem ba def sax li wax euh, saafara bu indi jàngoro comme af problème loyer beeg yeneen ak yeneen. Mm-hmm. Euh, d'accord Gomis <laughs> avant dem ci beneen étape bi. léegi man xam nga li may sànq kii docteur da nga ne. Euh, que dañ yëpp dañ koy accès ci euh, maanaam le social. 47,5 pour cent. voilà tu as donc euh, loolu presque presque moitié wu budget bi la. Mm. waaw léegi yeneen secteurs yi nga xam ne ñu ngi toog di xaar. lu ci mel ni santé lu ci mel ni kii te man am na sax li nga xam ne man tax na sax ba ñu wàññi ci sport. Mm. wàññi nañ ci lu rëy. dégg nga man déjà eggul 1 pour bi ñu digoon. tey jii mu ngi gën di wàññi suñu euh, budget ñun sport waaw léegi est-ce que euh, est-ce que du indi ay problème maanaam ci yenn secteurs yi euh, yoo xam ne parce que secteurs yooyu comme par exemple la santé l'éducation dégg nga secteur yoo xam ne c'est vraiment dafa am dafa am doole. waaw mm-hmm. parce que booy wax secteur sociaux yooyu yooyu ñooy basé d'abord. Mm-hmm. santé bi comme comme éducation mun wax booy wax social fa ngay mm-hmm. foofu ngay tàmbalee. problème kay mooy ne da nga naan lu tax at yu weesu. doxaliwu noonu ñu nekk ba ba nga xam ne veille élection la nga bëgg ci insister ci loolu problème mooy foofu voilà euh, li koy waral mooy ne dañ koy seetlu boobu dante ne ñu ngi fàttali ko tuuti en 2018 c'était la même déclaration mm-hmm. année sociale voilà waaw waaw loolu économiste yi wax nañ ci yàgg ñu wax naa la ko wax naa mos naa waxtaan fii ñaari théoriciens yu mag ñu wax Kaleki ak ak Nordhaus ñoom ñooy théoriser li ñuy wax le cycle politico économique waaw di opposer li ñuy wax rationalité économique ak rationalité politique maanaam bu dente ne ñu ngi jub jub ay élection souvent la c'est la rationalité politique qui prend le dessus c'est la rationalité économique parce que foofu ñu nekk au pouvoir lenn rek mm. moo leen préoccupé mooy le souci de réélection maanaam lu ñuy def ba toogaat te lépp loo xam ne jàpp na ne fii boo fa def ay ay moyens def ci effort nit ñi dañ gis seen bopp rapidement. Mm. nga xam ne ci diggante boo bokk vote bi jot moom daanaka sama xol day sedd da nga am mille chance pour boo leen wax ñu déglu la mën laa jàppale. voilà léegi ba su élection yi jàllee nag li ñuy wax rationalité économique dafay ñëwaat da ngay xam fii kat fii lañ ko dugal foo moo rek di population yi gën a bëgg wàll fa nga yaakaar ne boo fa dugalee moyens yi nit ñi topp la nga def ko foofu parce que loolu mooy si préoccupation tey ku yore nguur nga xam ne parce que élection nga jàll yaa ngi yem ci élection lenn kese kese mooy sa préoccupation mooy nooy def ba toogaat pour nga toogaat comme nit ñi dañ lay voteel da nga xool na xol seet mhm. est-ce que équilibre da fu mel ni moom daal depuis jamonoy Senghor jaar jamono ay Wade euh, jaar jamono Abdou Diouf ci mag jamono jamono Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall daanaka boo xoolee ñu ci bëri dañ doon utiliser monde rural bi parce que nit ñi la nit ni bii euh, ils sont dañu dañu dañu reconnaissant loolu leen defal duñ ko xeeb te te voilà te buñ xasee jox seen kàddu souvent du dañ. Mm-hmm. voilà te ni dëkk bi gën a développé njàng mi di gën a jëm ca kanam université gën a bëri euh, bëri problème bi mooy ne. Euh, nit ñi dañuy gën a critique te mm-hmm. gagné grande ville de gën a jafe parce que loo xamante ni bii loo def ils n'ont pas redevable parce que mm-hmm. lii la war la kenn newul kaa ñu fan la yow yaa ñëw ne jox ma ma liggéey ñu jox la jàll ay moyens ne liggéeyal ñu. donc mun on ne peut pas se sentir recevable. damay fàttaliku rek 2013 bi président Macky Sall orienté par exemple les nouveaux bacheliers yi nga xamante bi bi université jëlee pare le trop plein. Mhm. ñu jë orienté dans le privé. mën wax étudiants yi euh, nañ ko remercier félicité ko ci courage politique bi mu am. Mhm. parce que ñun bi ñu doog am bac ak ñuy jutoog ñooy yeneen ñu topp ñëpp. université yi dañu orienté rek ci selon capacité ñi si des ku ci nekk xam lu ñuy wax lu olof lu golof wax lu golo xam bay kii watu doomam voilà ça veut dire que ñii seen parents yi am nañ moo ñu fay lañu jàng ña dem uti yu métier ñi nga xamante bi valide nañ et cetera dem dugg armée ainsi de suite mm-hmm. mais ki nga xamante bi jàpp na ne université yi seen capacité li ci des mm-hmm. mu ne dañ ko nañ leen orienté privé état fay ma ne kooku courage politique volonté politique dañ koy dañ koy saluer mais foofu nga yem nag parce que c'est l'argent du contribuable qui retourne au contribuable mm-hmm. on n'a pas à se sentir redevable bi aussi noonu lay demee mm-hmm. voilà donc euh, encore une fois euh, monde rural bi domaine boobu loolu ñu wax noonu ndax dam ba mujj dañ koy presque instrumentaliser mm-hmm. xam nga toll nañ foo xam ne monde rural ku ñuy lebal sax ay jóog yooyu nga yàkkamte di fay nit ñi dañ ñeneen ñi dañ yaakaar sax wéeru alors que parce que bor boo xam ne wóor na ba élection jege jege seen ñu baal la ko ñun looy yàkkam si di ko fay et bi <laughs> yëpp pour xamal na rek dañ ko doon instrumental mhm. waaw culture culture bi waroon culture de l'éducation financière xam ne la nga am tàmm am relation ak banque di leb di fay ñu lay kon dina leba leen accompagne dañ dem ba loolu sax liñ liñ leen ci waroon defal ak fulaak fay di ci waroon tàmm amuñ ko lu tax ndax lépp lañ koy politiser. instrumentaliser euh, waaw euh, waaw non non c'est am na fu ma bëgg a. pour ñu rester ci social waaw mais mm-hmm. est-ce que. Mm-hmm. ñoom ñi ni ñu deferee euh, budget bi est-ce que xalaat nañu maanaam kii nga xam ne dafa am aspect sociale mm-hmm. dafa am secteur yoo xam ne xam nga maa ngi lay wax léegi sport. xam nga sport booy xoolaat euh, social bi dafa bare le sport sénégalais boo culturellement euh, euh, aspect social bi dafa bare te ñu ngi ni wàññi nañ ci neuf milliards ci suñu budget léegi na loolu laa la bëgg man man man affaire boobu laa yu affaire boobu moom mooy inquiété wu tey xam naa ne comme ni nga ko waxee sànq rek dañ ci def def plateau spécial parce que man man INSEP laa nekk <laughs> waaw économie sport ça fait dix ans. voilà parce que maa ngi koy jàngale foofu. ak yeneen yi ñuy wax financement du sport. Mm. analyse économie du sport mm. vraiment lu xóot la. Mm. parce que c' est vrai que sport moom nu mu dee dee sa budget nga ci affecté un pour cent. voilà donc ça veut dire lu ma si jàpp boobu ba léegi. mooy ne budget ministère du sport dafa manqué ambition. léegi nag yow mënoo bëgg ay résultats te amoo ay léegi nag. histoire dana def ne am nga benn génération bu ñoo ñu am talent ba nga xamante ni mais avec très peu de moyens. Mhm. dañuy dañuy def résultat. su boobaa mën nañ jàpp ne organisation bi moo tax mais en réalité peut-être li nga yor la. Mhm. voilà mais moom parce que même après match victoire bi kan bi doon naa ko wax derrière l'équipe nationale y a rien c'est le désert total. Mhm. et voilà donc loolu nga war nañ ci gën a réfléchir préparer ay ay ay ay ay ay génération nga préparer waaw parce que boo xoolee équipe yi jël coupe du monde ak yi ak foofu yëpp da gis ne génération bi hmm. boo ko yàgg a topp gëstu tuuti da ngay gis ne presque foofu la ñu waroon jëm et cetera et <laughs> mais encore une fois sport moom gis na ne day contribuer ci développement local day contribuer du ci paix sociale euh, mais aussi pratique bi sax boo ko gën a démocratiser waxuma dara mais mbirum santé rek dem hmm. ci améliorer waroon hmm. tax di <laughs> ñu. il dugg ci déclaration loolu la comprendre naa li li inquiété wu Cheikh Tidiane Gomis. mooy mm. tey jii nii bu gisee presque euh, plus de 40 pour cent ñu ngi koy jagleel social bi euh, du coup euh, Cheikh Tidiane Gomis dañ ne jamono ba nga xamante ne plateau technique yi santé bi doy na waar trop pourquoi pas duñ ci gën a investir. Mm. waaye aussi xam naa Gomis mi ngi wax ci sens ba nga xamante ne mooy tey ji nii école yi lu gis nañ ni am na jusqu'à présent ay saket mm-hmm. donc pourquoi pas aussi duñ investir ci domaine boobu ndaxte buñ nee développement faw ñu taxaw ci yooyu yëpp parce que mënuñu ne développement te wax ñu éducation mm-hmm. du xam naa moo taxit euh, Cheikh Tidiane Gomis daal di inquiété bu mm-hmm. baax a baax ci anam ba nga xamante ne moom la ñuy doxalee ak budget bi euh, nag euh, docteur Mor Gassama ñu gis ne aussi la nga xamante ne moom mooy déclaration bi ñëpp ñu ngi koy xaar nag te moom kay premier ministre moom te ñëpp ñu ngi koy xaar mm-hmm. yow en tant que économiste lan ngay xaar ci déclaration sur le plan économique <coughs> Euh, waaw jërëjëf euh, loolu euh, c'est vrai parce que tradition la. Mhm. premier ministre buñ la falee bala nga am 100 jours ma ñetti weer yu mat nga taxaw dem ci penc ndaw réew yi. Mhm. waxataan ak ñoom ne leen ah man kat fal nañ ma pour ma jiitu gouvernement Sénégal. ci nii ak nii laa fas yéene doxale mhm. voilà euh, ci le plan économique nga wax yi nga xamante ni foofu nga war a doxale ci le plan social fi nga xamante foofu nga war a noonu war a def mhm. ci le plan politique aussi renforcement démocratie bi ñu ci war def extra sur plan sécuritaire li nga xamante moom nga ci war def ainsi euh, boo paree nag nga jégg leen kàddu gi ñu xool boo xam ñoom am nañ ci confiance ou mhm. parce que li nga wax bu leen doyee ñu confirmer wala bu bu la nag mën nañ indi sax li wax motion de censure loolu yëpp lu a nekk moo tax Euh, ci gàttan daan maanaam ñi fi mu jot a jaar ñëpp comme premier ministre déclaration bi Amadou Ba moo ci war a gën a métti parce que bu njëkk ba majorité la majorité mekk ni nga yor quel que soit la xam nga ne motion de censure mënu ci amaal bu ñu amee tamit du aboutir mhm. parfois sax da nga naan perte de temps la mhm. et mhm. mais bii yoon mag lay doon fa nga wax lu leer nañ waaw donc euh, problème yi bari na Euh, sànq ci éducation bi wax nga ko les abris provisoires parce que dëkk boo xamante yaa ngi compté lu ëpp euh, lu mat 6000 abris provisoires euh, loolu rek je pense que loolu sëkk comme problème boobu mën a régler gis na ne mbay mi doxul boobu léegi. Mhm. mbay mi doxut càmm gi des na. Mhm. vraiment napp gi gis nga xale yu bëri ñu ngi ko secteur boobu ndax gis na ne suñu géej daanaka dara resut fi nan nga mën a def pour nga mën a surveiller baax a baax géej gi mais aussi di pour que jën yi espèce yu mën a gën a reproduire et cetera et cetera. Mhm. Euh, baykat bi nan la war ma demee autonomie mais aussi ci àll bi mbay mi ak yooyu productivité bi nan la ñu mën def ba améliorer ko. parce que tey booy bay depuis fukki at boobu li nga ji moom la nga la ngay xaar chaque année presque changé wul ça veut dire que y problème. Mhm. parce que boo demee ci réew yu mag yi nga gis seen loolu mooy seen point fort seen productivité dafa élevé ñun li muy amélioré yu bëriwul. pourtant yàlla xam na ne ñi ko mën am ñu ngi fi ñi xarañ ñu ngi fi. Mhm. boo demee fu mel ni ISRA. ñun daanaka ci loolu rek lañuy lañuy yëngatu. Mhm. loo bëgg a bay boo bëggee variété bi mën na la ko defar. ñooñu nan nan ci nan la war a def bu mettre dans de bonnes ñu mën a nekk au service donc des des des des des des des mhm. man loolu loolu am na solo waaye aussi Sénégal yi nga xam ne la ñu mën def ba amee seen condition nañu mën def aussi ba ba ba kenn doon exploité parce que damay gis ne sénégalais yi nekk fi sax di liggéeyal sénégalais respect bi ñu jox sénégalais étranger Farokh joxul leen ko. daañu mm-hmm. bu dee yéen a ngi fàttaliku jamono autoroute Ila Touba bi coow la fa amoon ak chinois yi. nan doon nan doon traité euh, yenn jaay ba kii liggéeykat yi. type de contrat yu dérisoire yu amoon. ñi nga xamante sax parfois euh, seen seen seen chef d'entreprise daf leen dañ leen gëdd wala sax di dóor comme xale. dégg naa ko fi ci rajo bi benn du ñaar. Mm-hmm. ba tey suba gi maa ngi gis seen benn euh, na natango mi ngi ciy def la une de la presse la une donc euh, hôtel bi nekk jam ñaajo Turquie yore ko ñu foofu ñu ngi maltraiter travailleurs sénégalais mm-hmm. et cetera donc ça veut dire ñi nga xamante ñooy les inspecteurs du est ce que bu ñu ci am doy na bu doyul mm-hmm. nañ gën a bari pour aussi fu ñu dégg mel noonu rek mm-hmm. dem gëstu ci am na yoo xam ne nag waroo xaar war nga dem gëstu directement mais boo déggee dara moom amatoo amatoo droit xaar a na wala amut kon xaar daal na li ma ci jaaxal nag mooy temps d'accord mais Mamou dama déggoon benn intervenant mhm. di wax que y aura pas que les am na ay syndicalistes yu nga xam ne dinañ am opportunité tey euh, poser ko seen ay problèmes est-ce que loolu c'est certifié euh, parlement boo ne assemblée nationale ay député ñoo fi nekk ay député kese waaw ñoom nag buñ bëggee mënuñ ko invité fi ne mën nañ ko invité waaw ci d'accord voilà bu dente na ñaa ngi yàgg nga suivre information yi xam nga ne fu ci mel ni synthèse mhm. dañu yàgg affilié ci PS c'est vrai voilà mhm. donc presque secrétaire général yi jaar foofu yëpp ci synthèse yàgg ñoom ñëpp parce que député la ñu mës a nekk et cetera mhm. yeneen parti ñu nekk waa waa INSA ñooñu aussi jamonoy ñoom euh, donc euh, jo kii euh, fa Castro jo Castro ñoom ñëpp ñàkkoon na assemblée nationale ñooñu bu ñu fa nekkee certes seen parti moo ñu fa mm-hmm. jox leen leen gëdd aussi dañuy représenté syndicat bi mm-hmm. wax. comme aussi mën nañ ko jàllale ci ñeneen ñi. est tamit docteur duñ xaar ci moom tey jii mu wax ci le fait dollar bi dafa yéeg. jéegu pétrole bi yéeg na est-ce que tey ñoom bu ñu nee année sociale tey jii ñu waxee wàññi par la force euh, euh, xam euh, prix des denrées alimentaires est-ce que tey jii nii duñ ko xaar aussi ci point boobu est-ce que moom mën a convaincre député yi ci loolu. waaw en fait foofu day expliquer rek effort yi état bi def état bi depuis depuis crise commencé ba léegi effort yi mu ci def def na ci effort ah kenn nag le loolu parce que booy xool. Euh, daanaka ci début d'année bi ñu doon prévoir ci ay subventions yooyu dépassé wu toon euh, deux cent cinquante milliards. Euh, léegi dem na ba parce que président déclaration bu ñu wax wax ni milliards mais en réalité FMI sax bi mu defee projection milliards ko gis. et cetera donc ça veut dire que kenn wérén tuut ne. Mm-hmm. effort am na ci. Mm-hmm. mais effort yooyu. Euh, parce que crise la parce que crise moom bu amee rek il faut prendre des mesures maanaam mesures yoo xam ne courte durée pour nga man fu ñu gën a mën a orienté débat bi dëgg-dëgg mooy yan lan la ñu war taxawoo ba yu mel ni bu amatee du du ñu gaañ wala dina oyof ci population loolu nag mooy ne li ngay jëfandikoo ci ci bari nga koy bàyyee ci réew mi. bu dante ne dépendre ci bitim réew euh, ci ngay gën a amee possibilité di yu bari bari mais bu dante loo soxla yaa ngi ko ute bitim réew foofu ñam soxla na ci lañ yor hmm. en même temps na ngay def ba indi ko poser problème bu ñëwee mënut a yomb c'est pas possible hmm. kon su boobaa buñ déggee ci say kàddu tant que am ñu la xam te mooy bàyyi li ngay dundee genre euh, tey ji ni donc dana métti lool tey état di subventionné dana euh, diis ci gafaga état du Sénégal waaw parce que da ngay da ngay vulnérable quoi maanaam lu yëngut fële rek daal di touché alors que mbir mën a yëngatu ci bitim réew toog ay at lu yàgg ay weer yu weer fekk yow yaa ngi koy séntu muy ñëw nga commencé gën a préparé mais bu naan teel rek ba nga dégg ordonnance bu naan teel rek damoon maanaam bu naan teel fa rek da nga koy sentir directement fi mm-hmm. te loolu lu war a mën a ñàkk lu koy waral nag mooy li nga soxla lu ci bëri nga koy amee fii voilà gis na gis nga euh, autonomie dafa baax Mhm. même gis nga crise euh, russo ukrainienne bi nii bi ma gisee européens yi vraiment ànd ak Ukraine deux jours trois yu ne ñu jël seen mesure mois de mars bi ak avril man dama daan ree rek fekk baaw maa ngi demoon voyage d'études en France mi waxtaan suma copain yi Mamoud Diallo man xamuma man lu mu nekk seen mesure balaa muy la Russie ñoom la njëkk a laal bala ci seet waaw c'est important mel ne France mhm. yow que mu nekk pétrole kii pétrole bi gaz bi Euh, mu nekk euh, blé bi mu nekk tournesol parce que huile bi ñuy defaree huile huile tournesol yooyu yëpp yaa ngi ko jéggaani Russie si lu muy jéggaani ci du dara par rapport ak li ngay wut ci moom. Mhm. kooku yow boo nee da nga xëy di ko sanctionné mel ni comme da ngay wax ak Afrique wala benn pays africain. <laughs> c'est pas la même chose non que. Mhm. waaw doo comprendre daal maanaam nit ku yëg boppam wala ku gis boppam. Mhm. mais yow xam nga ne yow dëkk dëkk bu ndaw nga par rapport ak kii. waaw côté armement la France Europe presque France moo ci gën a armé wu. moo ci ëpp wàll moo ci ëpp mm-hmm. tuuti lay représenté par rapport ak li ñu waxuma la donc pour man ñoom en ñu wax la ko ñàkkul ko wax. Mm-hmm. mesure loolu ñu ngi koy regret. en tout cas ayca mu nekkoon lu lu am solo ah mm-hmm. maamu xëy na. ñu bàyyi la nga tàggatoo mais avant ngay dem ñu bàyyi docteur mu tàggatoo moom aussi wax le dernier mot. Euh, waaw dernier mot bi rek mooy ne euh, tey moom xam naa ne li ñuy wax déclaration de politique générale c'est un moment foor mm-hmm. euh, ci ci ci la vie donc d'une nation mm-hmm. parce que ki nga xamante bi dañ ko teg ci kanam mu jiite jëwriñ yëpp mm-hmm. wala ñëw taxaw waxtaan ak réew mi parce que boo nekkee ci ndaw réew mi ñooñu fa représenté foofu ñun ñu ngi fay xaar un débat serein <coughs> débat boo xam ne lépp lu ko nit di soulever daal comme discussion lu war a amal réew mi njariñ la voilà mais bu kenn dafa indi ay ay décisions bi ay ay ay ay décision partisane ay position partisane mm-hmm. xëy na nag politique la ñuy def certes voilà mais daal foofu la ñu a xaar foofu la ñu gën a xaar discussion yi mhm. voilà ba nga xamante ni daal képp ku toog di ko déglu mhm. waaw loo ci dégg rek da dina mën a njëriñ et non loo xamante ni bii voilà comme yi passé c'est vrai am na mhm. ci dérapage bëri ci am yooyu vraiment ñu daal di def maamu ñu bàyyi la nga nuyu imaam yi euh, <laughs> waaw loolu la maa ngi leen di remercier euh, di leen remercier yéen ah, rawatina kii di doctor Mor Gassama mi nga xamante ne donte sax am na cours à de 9h mu daal di bàyyi lépp ñëw fii mhm. euh, toog plateau wax ak ñun wax ak euh, téléspectateurs